Wow, Pension Bimal est encore, c'est le professeur Celestino depuis la Suisse. Incompétence, vous n'êtes que qui Guy n'est plus à démontrer. C'est de l'incompétence par excellence. Mandemna Japon, puisque je suis lauréat Award 2015 de l'Académie internationale de cytopathologie, moi, lépp plus euh, di dem ci mirum cancer a fever dem na japon dem jeli sama lauréat lauréat bi nek dafa and ak 10% xaliss benen bi yep ay dons la c'est-à-dire que si ay dons de 2 millions de dollars, nous n'avons 5 millions de dollars sur le matériel médical. Ah, ay médicaments ay salle d'opération ay euh, appareil dialyse ay appareil diabète ay appareil accouchement ay appareil euh, radiothérapie etc. Ah, ambulance Me prévenir ambassadeur Bifi, Genève Me prévenir senior ambassadeur fallait Tokyo Japon Me prévenir euh, ministère de la santé et de la prévention Me prévenir Fallait le New wax pale fax bi amna Bon ko boo dem Japon bala ma fay dem sax ablay wad woma félicité ma ne ndax Macky Sall woo na la ko ah ki papa ki woguma ba légui Abdou Diouf président woma ne est-ce que félicité nañu est-ce que délégation bi tamit buy Sénégal dem gungé Tokyo tout ça c'est prévenu mané ko ah euh, euh, président Abdou Diouf euh, Makisal Sall ba le dal waxuguma dara non la démé Japon 15 000 scientifiques ñu ngone fa ay américains yek ay norvégiens yek ay australiens yek ay émirés Qatar ñep ñep fa nékkone le premier ministre japonais bi woma pour ma dem ci table euh, pour dîner gala bi mu ne délégation sénégalaise Wall ce gouvernement délégation gouvernementale du Sénégal comme ça ñu toog ci table bi comme ça ñu laajte lan lan ngeen bëgg pour Sénégal ma wut délégation sénégalaise amuloon kenn kenn ku fa man ñii rek ma fa nekkoon ma daw comme que je suis en Suisse ma daw si Séné délégation Suisse yi le ne leen ñoo Bon, ñu tok ci table bi premier ministre japonais bi euh, professeur Celestino ko ah tal nous mais bon euh, parce que délégation sénégalaise ñewul Nous ne lan ngeen soxla ay machine radiothérapie ay dialyse ay nous lan ñun ñun ñu Nous ñun dal soxlu ñun <laughs> yéen sole ñu mais jox ñu si radiothérapie une machine, une ambulance une salle d'accouchement euh, la Suisse n'en a pas besoin Non, la ñu pertee affaire gi Non, la ñu pertee affaire gi lépp loolu donc tey man la rage au cœur parce que ce ce gouvernement est d'une incompétence par excellence parce que may sommes ma mais nous sénégalais mais nous ñu la nation sénégalaise mais on nous considère pour zéro zéro zéro suis suis jéegalu parce que man suis ngi waxtaan un sama parce que affaire bi dafa métier. Nous ñu gratuitement en tant que lauréat hein, pour yóbbu ko Sénégal il n'y a même pas de représentants du Sénégal Il n'y a même pas de scientifiques depuis le Sénégal pour échanger leurs cartes de visite hein, pour nous nit yi si Sénégal nous euh, euh, di participer dans euh, dans dans dans la médecine sénégalaise Holen, leen dugg leen ci hôpital Dara dara defuñu ko fa ana radiothérapie bi ba mou, ana mu ana mu ana ana machine bi ba mou, ana mu nit yi foofu di ci cancer ci ben opération mu ndaw rek ah? c'est c'est quoi comme comme compétence ça ما له والسلام والسلام